ñaareelu xaj bi ci ñetti xaaj yi ndaw yi ci yerusalem dégg ni waa samari nangoo yeesu ñu yónni piyeer ak yowaana ci samari ngir ñu jàppale ñi gëm piyeer ak yowaana ñaan yàlla ngir xel mu sell mi wàcc ci waa samari ndaw yi teg seeni loxo ñi gëm xel mu sell mi wàcc ci ñoom bëggoon na jot ci may googu mu bëgg a fay ndaw yi ngir ñu sedd ko ci doole ji ñu am yaakaaroon na ne mën na jënd xel mu sel mi xamul woon ne taalibi yeesu dafa war a déggal xel mu sell mi waaye Pierre ne ko asarul ak sa xaalis yow mi yaakaar ne mën nga jënd mayu yàlla ak xaalis jëf ya saar juróom-ñett aaya ñaar fukk Pierre wax simoŋ mu tuub te jéggalu ngir yàlla musal ko Simon ne ndaw yi ñu ñaanal ko ngir yàlla baal ko ginnaaw gi Pierre ak Yowaana dellu Yerusalem ci yoon wi ñu yëgle xabaar bu baax bi ci dëkk yu ndaw yi léegi malaaj laaj leen ñeent lan la simoŋ bëggoon bëggoon na ak may gumu mën a jëfandikoo xel mu sell mi. juróom ci seen xalaat lan la xel mu sell mi doon ci nun mooy sunu boroom te war nañu ko déggal war nañu jaamu yàlla ci xel mu sell mi ndax sunu cofeel ci moom ak li mu nu may dund gu bees waruñu ko jaamu ngir mu may ñu daraja bu sunuy bëgg-bëgg nekkul lu baax war nañu tuub te ñaan yàlla mu baal nu